mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey suratu ibrahim alayhi salaam ci aaya bu jëkk bi suratu ibrahim ci aaya bu jëkk bi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunu borom subhanahu wa taala mu ni alif laam raa loolu moo xam lan la jublu ci loolu kitaabun anzalnaahu ilayka lii de ab téere la boo xam ne wàcce nañ ko jëme ci yow li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuur ngir nga génne nit ñi ci lëndëm ya yóbbu leen ca leer ga bi izni rabbihim lii lépp nekk ci seen ndigalu boroom ila siraati al aziz al hamid ci yoonu ki nga xam ne mooy ki tedd ki not lépp ka nga xam ne cant yépp day delloo ci moom moo ko yeyoo allahi lazi lahu ma fi samawati wa ma fi l ard yàlla mi nga xam ne ñeel na ko mboolem li nekk ci kaw asamaan yi ak li nekk ci kaw suuf wa waylun lil kafirina min azabin shadid alkaa nga ñeel na yéeféer yi ci mbugal moo xam ne mu tar la alladina yastaxibuuna alxayata addunya ala al axira ñi nga xam ne day dañuy gënale dundum àdduna ci alaxira wa yasudduuna an sabilillah boole ci di fegaate ci yoonu yàlla wa yabghuunaha iwaja di sàkk yoonu yàlla woo muy yoon wu jëng ulaika fi dalalin baid ñi mel noonu day ñi ngi ci réer gu métti mbokk lii mooy suratu ibrahim bokk ci saaru màkka yi nga xam ne la ñuy woote mooy ñu wéetal suñu boroom di ñu wonit la nga xam ne mooy kawteef yi mu def ci asamaan ak suuf ba loolu ñu am ci yaqin di ñu joxit ay misaal ngir ñu gëm ne allaxira am na gannaaw ba di dooleel la nga xam ne mooy ay yonentam suñu boroom yàlla subhanahu wa taala ubbee ko tàgg la nga xam ne mooy ab téeréem nee ni lii di téere la boo xam ni ñun yàlla ñoo ko wàccee mbokk sunu borom yàlla moo bàkk téere bi delloo ko ci moom anzalnaahu ñun yàlla ñoo ko wàccee te loolu it xamal ni kilifa ci làng yu mën a doon buy wax danaan ñun ñu ngi noonu loolu moo tax sunu borom wax loolu malaaka yi wàcc nañ ko ci ndigalam léegi nag lan moo tax téere bi wàcc lu bari ci julit ji tey seen rapport ak alquran mooy seen bàyyi day dee ñu wàccal ko kaamil wala bëgg a tudd wàccal ko kaamil wala di ko meubler seeni kër mais ñu bari dañ ko woon gannaaw sunu borom nag ne kaamil la boo xam ne wàccoon na ngir yow yonent bi nga génn nit ñi ci lëndëm yi yóbbu leen ca leer ga naam mbokk alquran jooju kenn dong ko mën a comprendre muy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ba moom mooy ki firi woon alquran sunu borom yàlla ne ko wàcce naa ci yow téere bi ngir nga leeralal ko nit ñi bi sunu borom ne julli leen moo ñu leeralal ne juróomi waxtu la fajar ñaar la tisbaar ñeent gee ñeent timis ñett ba baa jaamu yàlla yi di jeex waaye li génne leen ci lëndëm yi mbokk lëndëm yi mooy tooñ yi suñu yonent alayhi salaam ne na aw zulmu zulumaatun yowma alqiyaama tooñ ay lëndëm lay doon yowma alqiyaama waaye day nekk lëndëm yi àdduna commencé ci tooñ sa borom ci bokkaale ko tooñ ci sos ci diine ji lu mu joxewul ndigal muy bidaaya ak tooñ ca jalgati la nga xam ne néexu ko tooñ way jur yaag njaboot ga ila axiri alquran moo ñëwoon di la leeralal ne la fii nga war a jaar ak sa borom fii nga war a jaar ak yeneen ci yàlla bi nii ngay jaar ak say way jur nii ngay jaar ak ñi ngay jëflanteel mu yóbbu leen ci leeru borom boobu nga xam ne ki ka ki ka am moo xam nan lay comporté woo ci kaw suuf amma ki nga xam ne amul leer kooku day làmbatu rek di wéy moom muy zulumaat ya loolu nag mi ngi amee ci ndigalu yàlla ndax yonent bi alayhi salaam mën na comme jàkkaar loolu waar ko rek nga gëm tonti li mooy déedéet ndax bu doon looloo ba mu waaree bàyyam Yeesus ci moom kenn gëmu ko ci ñu ngi noonu nekk na makka ba jóge makka benn bàyyi mu ko gëm muy Hamza ñu ngi noonu amma Abbas gannaaw ba mu gàddaayee la gëm Abi Talib ci kéefër la de Abi Lahab waxi noppi te ñooñu ñooy ñi gënoon a sus ci moom kon képp koo xam ne gindi nga ko yaa ngi ko gindee bi iznillah ci ndigalu yàlla looloo tax mbokk suñ toogee di wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah dañ ko war a sante yàlla xam ne yàlla ñu baaxee firiwul ni dañoo am way juru julit déedéet yàlla moo ñu baaxee ndax li la koy won wal iyaazu billah sa baay bu xëyoon nekk chrétien it yow du tey nga sax ci lislaam am déet kon nga xam ne du sa baay moo la ci dugal mais xéewalug yàlla la fan la leen yonent bi jëmee mooy ila siraatil aziz yoonu borom kattan googu yoon boobu nga xam ne fukki yoon ak juróom-ñaar da nga ko ñaan yàlla ihdina sirat al mustaqim yàlla yàlla ñu teg ci yoon wu jubboo te mooy sirat alladina an'amta alayhim yoonu ñu ngi xéewal ci ñoom mooy ku ca tege rek yaa ko xéewal ña ci jiitu mooy yonent ya siddiqiwuna ya shuhadaa ya ak saalihin yi nga xam ni julit loo bon bon bon bokk ci saalihin pour mën a tabbi aljanna mi ngi noonu sunu borom ne ki wàcc téere bi nag mooy yàlla ah kan mooy yàlla mu ne yàlla mooy ki moom asamaan yi ak suuf moo moom lépp mbokk asamaan yi la tiim jant bi kon ku ko moom ah lii day jant bu yàlla la weer wi nag weeru yàlla la biddiw yi nag biddiw yàlla la boo wàccee ci kaw suuf waaw ku moom géej gi yàlla waaw ndox mi ñu naan ko ko moom yàlla oxygène bi tasaaroo fu nekk kan moo ko moom yàlla nga doog a dellu si waa man ku moom moom yàlla ko defee nga xam ne kon jaamu yàlla nga bu nekk ci biir jaamu yàlla war a jaamu yàlla bañ koo bokkaale dara ci gën a kannasu ci jaam yi mooy kii jël moroomu jaamam di ko bokkaale boromam subhanahu wa taala gannaaw ba yàlla ni waa asamaan mi malaaka ya waa suuf muy nit ak jinne ak lu mu mën a doon lépp man maa ko moom ay samay jaam lañu moo tax mu ne alkaage dana ñeel yéefér yooyu ci mbugal mu metti mu leen di xaar yowmal qiyaama ñan ñooy ñooñu sawara yooyu yàlla di wax mooy ñi nga xam ne dañoo gënale àdduna ci kaw alaxira te sunu borom nee na bal tusiruuna alxayaata addunia wal axiratu xayrun wa abqa li ëpp ci nit ñi àdduna moo leen gënal alaxira su ko defee it ku nekk ci ñeen war di wéet ci bopp léeg-léeg di xool boppam li mu waajal alaxira ak li mu waajal àdduna lu ci ëpp mbokk sunu borom dane woon wabtagi fi ma aataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia li la yàlla may ci jot ci alal ci njaboot ci ay pexe lépp sàkku ci alaxira doonte ne bul fàtte sa cër ci àdduna lii mbokk sunu borom ne nag li ëpp ci jaam yi mënuñu noonu mu am ci nag ñu gën a bon ñoo xam ne non seulement jaamuñu yàlla waaye ñi ngi xeex ne bu fi kenn jaamu yàlla mu ngi noonu wala man dëkk mel na France tey dañ naan la jigéen bu muuru duñ ko toléré ci école yi wala duñ ko toléré ci établissement yu bari mi ngi noonu loolu nekk musiba temps yi passé rek am na débat bu fa amoon benn xale bu jigéen sol benn jupe bu dem ba ci ay ndëggoom ñu ne jupe bi mu sol est trop longue gis ngeen jupe bi daa gudd ngir dund mbon ak woote ci ak mbon suñu borom nag ne ñooñu nga xam ne ñoo jafeel yoonu yàlla ba ñu bëri ñemee tuñ caa jaar da ngay gis ñu bari bu ñu nekkee ci yenn dëkk yi xataa yenn dëkk naar yi nga xam ne attewuñu islam jeunes yu bëri ñeme wu ñoo yor sikkim loolu ñu ay jamono ci Tunisie gi rek yor ko sikkim dili bu garaaw la woon ñu ngi noonu yooyu kon da ngay gis ne ay musiba la suñu borom nag ne ñii ñoo nekk ci réer goo xam ne réer gu sore sori la doomu aadama mën nga réer sax fekk jege ki ñëw unité 21 di laaj kër gu mu xamut bu sonnee mën na gis waaye ki demoon ba Podor di laaj ci kër gu nekk unité 21 loolu moom mooy réer goo xam ne nii réer gu sori la mi ngi noonu
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
سنبرون جل وعلا مني وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ñun day musuñoo yónni ab yonent lu dul ci làmmiñu xeetam li yubayyina lahum ngir mu leeralal leen fa yudillu llahu man yasha su ko defee yàlla sànq réeral ku mu soob wa yahdi man yasha daal di jubal ku mu soob wa huwa al aziz al hakim mooy ki nga xam ne moo not lépp te it mooy buur bu xereñ bi hakim lu nekk teg na ko fa mu war a tege wa laqad arsalna muusa bi ayatina nii lañ yónnee woon Muusa ci suñuy aaya ya suñuy kawtéef ya an axrij qawmaka min azulumaati ila nuur ñu ne ko génneel sa xeet bi ci lëndëm yi yóbbu leen ca leer ga wa zakkiruhum bi ayaamillah nga fàttali leen ca bisi yàlla ya inna fi dalika la ayatin li kulli sabarin shakur nekk na ci lii day ay kawtéef ñeel bépp mu ñaa kon bépp santaa kon mi ngi noonu ku sax di sant boromam mi ngi noonu mbokk sunu borom subhanahu wa taala mu ne musuma yónni benn yonent lu dul dafay làkk la nga xam ne moom la xeetam dégg ngir mu leeralal leen la yàlla subhanahu wa taala bëgg mi ngi noonu xatta suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam donte ne yàlla nga ko yónni ila kaafatan linnaas waaye yàlla nga ko yónni bi lisaani qawmihi lisaanun arabiyin mubin mu nekk làmmiñu arab bu bir léegi nag mbokk lan mooy pexe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni na ko ila kaafatan linnaas ca moom làmmiñu arab la doon utiliser loolu moo tax mbokk ñu xam ne du lu ñu sopp bal farata la farata la ci bépp xeet jéema tànn ci ñoom ñoo xam ne dañuy jàngi arab ba xam li yàlla bëgg ñëw nettali leen ko ca langue ba ñu bëgg joolaat chinois portugais anglais yépp ci bokk yépp loolu farata la mënta ñàkk ndax sunu borom nee na lu yu bàyyi na lahum ngir mu leeralal leen loolu moo tax tey boo demoon su mel ne fële ci arabie saoudite complexe King Fahd bi nga xam ne di tabaatul quran presque lu jege ñetti téeméeri langue dañ ciy traduire kaamilu borom bi subhanahu wa taala di ko tasaare ci kaw suuf ndax mi ngi noonu lu bëri ci yéen yor traduction en français bi jóge arabie saoudite ndax xam nañ ni munta ñàkk doonte ne loo mënul am léppam it doo ca bañ la nga ca mën a am alquran kenn mënu ko traduire waaye nag man nga caa wane loo xamee ne nii dana sens bi nit ñi dañ ko comprendre te falilahi alhamdu tey comme ni ngeen ko yàgg déggee partout dans le monde am na ci ñoo xam ni ci tradition yi la ñu sukkandiku ba yàlla def ñu tuub dugg ci biir l'islam loolu kon mbokk mënta ñàkk ñuy firi alquran amma bu dee ne li nit ñi wax di ko askaneek lenn suñuy sëriñ naan boo fekkee ñuy tafsir alquran dawal ba say dàll xar mbokk loolu ci cheytaan rek la jógee ñu bàyyi ci xel loolu wala moom ci yenn dëkk arab yi nga xam ne dañu bëgg a nax nit ñi it dañ naan tafsir alquran sawabuhu qata wa qat'uhu kufru képp koo xam ne da ngay firi alquran soo waxee dëgg juum nga ca boo juumee kéefër nga loolu bu ko defee alxuraan lan lañ koy jëriñ mooy di ko jàngal néew yi kese di ko jàngal néew yi kese mi ngi noonu ku mel ni aljazairi mi ngi nettali kenn ci buuru arab yi daf na mais daara yi ban njëriñ la am ñekk jël xale yu nekk fi di jàngale il faut ñu ñu tëj daara yi ñu ne ko non mais nañ bàyyi parce que dañ koy jàngal ñi dee dañ koy jàngal waaw waaw bu dee loolu kon sawa gis ngeen waaw ala kulli xaal mbokket da ngay gis lu bëri ci doomu aadama yi boo déggee mbooloo mu daje tiim alquran rek dañ koy wàcce am déet gannaaw bu ko yàlla wàccee di lañ njëkk a wax mooy anzalnaahu yàlla wàcce ko mais tiim alquran di ko firi loolu néew na loolu mbokk ci sunu réew yi loolu it la ñuy déggee mbokk njuumte boo xam ne sunu maam yi juumoon nañ ko ca mooy du xutba juma te mille personnes di leen wax loo xam ne dégguñu ko ca xutba juma mooy semaine bu nekk imam war a jàjji nit ñi wax leen programme bi adduna bi bu dee ay xew-xew am na ci mu wax leen ko delloo leen ci yàlla fàttali leen ya dagan fàttali leen ya xaraam imam mën a tiim mille personnes pendant trente minutes wax ak ñoom ñekk ci dégg matul trois ou quatre xam ngeen mbokk lii du xikma te li du xel abadan su ko defee kon mbokku xutba yi dañ koo war di firi da ngay gis ni léeg-léeg nga dégg imam di wax waxi lii ku ko def mbug yàlla mbugal la nga dégg ñu naan amin yàllaa ngi ne ñi def leen njekk ci waajur yi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan amin wa yanha anil fahsha'i wal munkar amin parce que li ñu wax xamuñu ci dara te loolu mbokk du futu mbooloo mi futu imam yi la heure bu ñu koy wax suñu xel dem ci kan ci mës a jiite muy Senghor Senghor dafa doon def tournée ñu boori Kébémer tombé amical Cabral ñu rey ko gars yi nii ci biir discours bi mu ne ah comme ñu ngi waxal moom France lay wax lu mu wax rek ñu way way way way tëgg seeni sabar mu ne je viens de recevoir une triste nouvelle le décès de mon ami président amical Cabral gaa yi ne wéy wéy wéy wéy mu ne non non non non dama ne sama xarit amical Cabral dañ koo rey yaa ngi rek su ko defee kon mbokk loolu mënut a ñàkk waaw ci doomu aadama yi ñu leen di wax li nga xam ne dañ koo dégg amma li xew ci sunu jumaa yi loolooy moom wax dëgg yàlla xew na mi ngi noonu ala kulli xaal sunu borom yàlla jóge fa daa dañuy nett li kenn ku jiitu woon sunu yeneen te muy Muusa alayhi salaam mu ne Muusa day maa ko yónni woon ci samay aaya aaya ya ñaar la aaya ya nga xam ne moo nekkoon mujizaat ya te mooy loxoom ba nga xam ne su ko masaan laal génne mu daal di nekk weex tàll leer ak yatam ba mu daan sànni mu nekk jaan ak yeneen ya nga xam ne nii ci biir misra la xewoon tuufaan baag na doon mbott yaag deret jaag ila axiri waaye gannaaw ba it la ko yàlla may tawraat muy téere bi gën a màgg après alquran waaw xam naa monsieur le maire téere bi gën a màgg après alquran ca mooy moom it li alquran di dox lay dox mooy ñu génn nit ñi ci lëndëm yi yóbbu leen ci ay leer ca la nga xamee ni nii moom mooy seen ndigalu borom comme ni mu nekk woon ci alquran mu ne it waxoon na ko mu fàttali nit ñi bisi yàlla yi mbokk bisi yàlla yooyu mooy yan mooy yu neex yaag yu naqari yi la sunu borom mu ne wa tilka al ayam nu daawiluha bayna nas waa bani israil yàlla nattu woon na leen loo xam ne nii romb na ñiin fukki at firawna noot leen di rey seeni doomi góor di rey seen doomi jigéen loole di bis yu tar ci ñoom ñu dem ba jimmi jamono benn ci bis yi sunu borom yàlla labal firawna ak i notablam loolu it di bis boo xam ne bu jërë fàttaliku la moo tax sunu borom ni ñi nga xam ne dañuy muñ tey sant yàlla daan bàyyi xel ayyaam allah moo tax Moussa alayhi salaam daan jël bisu ashura daan ko woor ngir sant yàlla bi mu allégi firawna sunu yeneen ci Muhammad alayhi salaam it ne woon jullit ñi ñoo gën a yey ci Moussa nañuy war ashura moo tax ñuy war ashura ba sunu jamono yi tey. yow doomu aadama léeg-léeg booy xool war nga bàyyi xel gannaaw di waxtaan ak sa ñoom maam soo mënee waxtaan ak sa maam dañ lay wax ne Sénégal gi day tolloon nañ ay jamono doomu aadama day yor xaalis bëgg yére bu mu sol waaye du am yére du gis yére kenn du gis yére li nga noonu kenn du gis yére da ngay gis ko am ak séetam téye ko fa lu nekk un an et quart ngir ñaari sër yu mu ko jox mu waddoo ko ñëw këram loolu du am loolu li muy wax mbokk jullit matagul téeméeri at matagul téeméeri at boo delloo crise bi ñu doon tuddee la crise des années trente su maam yi boole woon nañu xiif bu metti rafle bu metti gannaaw ba nga xamee ne nii guerre bi jàll na quatorze dix-huit boobu waaye bi crise boobu di waaj a jeexit beneen guerre déclarée muy 39 45 loolee nekk diir boo xam ni soo waxtaanee maam yi nekk kër ga da ngay gis na metti woon na lool ballu nag ñi nga xam ne daan nañ dégg waykat yi fi jaaroon ku mel ne lay bu boobu da nga dégg li mu daan wax mu naan démb metti na démb metti na da nga daan tëdd ba guddi jot buur tëggum gëndëm ne jóg leen fii ku fi fanaan dib jaar loolu lañ daan def da ngay nekk sa kër rek benn gawar jóge fële góob rama sa jabar say doom dem yóbbu jaayi tubaab bi wala def ay jàmmum leen neexe tey nag moo ko fali lay alhamd fu waay nekk ci réew mi yaa ngi fa nekk ak jàmm yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi solu sa njaboot ngi jàmm loolee mbokk la ñu war a faye yàlla nekkul di sant keneen ku dul moom nekkul di sàggante ay caaxaan waaye dañ ko war a fayee delloo ko santaat ko yépp sant yépp ñu delloo ko loolu kon moom la sunu borom wax ak Muusa alayhi salaatu wassalaam mi nga noonu
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساء وفي ذلكم تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد
mbokk sunu borom mu ne wa id qaala muusa li qawmi fàttalikul ba muusa di wax xeetam uzkuru nicmat allahi alaykum e way fàttaliku leen xéewalu yàlla ci yéen id anjaakum min aali firawn bam leen di muccale ca njabootu firawn yasumuunakum suu al azab ñu leen di mandargaale la gën a ñaaw ci mbugal wa yuzabbixuuna abnaakum nekk di rendi seen doom yu góor ya wa yastaxyuuna nisaakum di sakku dundal seen doom yu jigéen ya ngir def leen i jaam wa fi zalikum balaau min rabbikum azim nekkoon na ñeel leen ci loolu natt bu bawoo ci seen borom di natt bu mag wa id taazana rabbukum fàttalikul ba muy yëgal yëglu sa borom di yëgle la in shakartum la azidannakum ne su ngeen ma sante day danaa leen dolli wala in kafartum inna azabi la shadid amma bu ngeen ma weddee samay mbugal lu tar la wa qaala muusa in takfuru antum wa man fi l ardi jamia muusa ne su ngeen weddee yéen ak waa suuf mboole seen fa inna allaha la ganiyun xamid sa borom yàlla mooy ki woomle mooy ki yeyoo cant yépp mi ngi noonu mbokku sunu borom waxoon ne ni muusa ñëw na ne xeetam ni leen eewaay fàttaliku leen ci bisi yàlla yi waaye itamit fàttaliku leen xéewalu yàlla ci yéen bi mu leen di musal ci firawn firawna bi nga xam ni doon na leen mandargaal ay ba foo gis kenn ci yahudi bani israil gis ci kanamam tristesse gis ci kanamam ak suufe ngir coono yi leen firawna di teg bokk na ci loolu boo amee doom bu góor mu rendi soo amee doom bu jigéen mu yóbbu ci chantier ya mu ne nag loolu natt la bu bawoo ci seen borom bu tar te loolu mbokk yàlla mooy nattoo doomu aadama yi nu mu ko sori bokk na ci ay nattoom jël ñenn ñi dóor ci kaw ñi ci des looloo tax même gannaaw Muusa yi bani Israil wax suñu borom waxoon na leen ni la tufsidunna la tufsidanna fi l ardi marratayn wala taalun uluwan kabira xerte ngeen ne bew ci kaw suuf bi waaye bis bu ngeen ko defee baasna alaykum ibadan lana uli basin shadidin fa jaasu xilala diyar daan ñu ni ci yéen suñuy jaam yoo xam ne boroomi kattan lañu ñu dugg seen biir kër ya loolu it mbokku bani israil jamono bi Moussa di ñëw ñooy xeet bi gën ci kaw suuf ñooy xeet bi gën ci kaw suuf teewul yàlla nattoo leen boole leen ak boor bu say say mu leen di teg loolu su ko defee it loolu jullit da koo war di bàyyi xel léegi nag seen borom muccal na leen ci firawn yóbbu leen ci Sinaay dalal leen ci Palestine léegi seen borom yàlla nag ne li ci des mooy su ngeen ma santee ma dolli leen waaye su ngeen ma weddee samay mbugal lu tar la mbokk ndax loolu daa valable ci bani Israël rek déedéet day valable ci mbooli mi jaami yàlla mbokk yàlla buñ ko sante naka la ñuy sante yàlla ndax moo ñu bâche sunu bâche teg sunu mbanay puuj paaj ak sunuy nuñ koy waxe bagaani café di dukkat bu suba jot mbokk la sant yàlla jaamu yàlla la sant yàlla mooy nga wéetal ko def ay ndigalam bàyyi tereem xiiwal gum la defal nga delloo ko fa ko neex nii la ñuy sante sunu borom sunu borom mu ne bu ngeen ma sante ma dolli leen xiiwal gum mën a doon lala yàlla may ci xam-xam nga jëfe ko yàlla dolli la xam-xam yàlla may la alal nga ci def lu ko neex yàlla dana ko dolli barkeel ko mi ngi noonu amma su dee da ngeen ne weddi sama borom yàlla mu ne mbugalam lu tar la loolu it moo tax ba képp koo xam ne nii xéewal na la nga weddi xéewal ga la cay topp rek muy mbugal loolu it moo tax ba julit di war a ñaan yàlla boole ko ci ñi koy sant waaye di ko dimbali it ci mu koy sant yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon na Muaz ne ko foo jullee ba pare del wax yàlla yàlla nañ ma dimbali ci ma lay fàttaliku yàlla nañ ma dimbali ca ma lay sant yàlla nañ may dimbali ci ma lay jaamu jaamu gu sell loolu mi ngi noonu dañ ko war a bàyyi xel fu ñu jullee ba pare waaye ngal la waay yi tamit xéewali borom bi subhanahu wa taala it nañuy bokk ci ñuy sant am nañu yàlla nattoo fu ñu toll ñu ngi jàmbat ñoo xamee li nga xam seen jikko boo toogee ñun waxtaan quinze minutes te néewuñu sama nangam bi sama nangam bi sama nangam bi mbokk jullit bu jàmbat jullit day sant yàlla cay muñ ndax xiiwal yi la yàlla yi defal doo dem di ko wax kon problème yi nga am bu ko séddoo nit ñi am na nag ñoo xam ne xiiwal gu am gu leen yàlla bett ñu ne muux ak moom problème bu am nag ñu tuur ko nit ñi bu dégg ba teg mbokk doomu aadama bi da ngay muñ allahuma la dul koo xam ne jàpp nga ne kat lii ma dal moom am na ci solution nga dem waxtaan ci ak moom loole moom l'islam bañu ko waaye koo dajal rek wax sama soxna si nii sama oto ba nii sama kër gi nii sama liggéey bi sama wax rek pour jàmbat loolu l'islam bëggut loolu loolu ñu bàyyi ci xel bu wax jullit da ngay sant sa borom borom boobu nag daa di ne Moussa waxoon na xeetam gis nga bu doon da ngeen di weddi ak yéen waa suuf yépp suñ borom yàlla ko woom le la ñëw na ci xadisul qudus yi suñu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam ne sunu borom yàlla ne ne ay yéen nit ñi law kaana law kaana insukum wa jinnukum law anna jinnakum wa insakum kaanu ala qalbi atqa rajulin minkum ma zaada zalika min mulki shay'a loolu du yokk fi mulki shay'a doomu aadama yépp meloon na muhammad sallallahu alayhi wa sallam yokko ci nguurug dara nguurug yàlla dara doomu aadama yépp meloon na cheytaan wàññiwul ci nguurug yàlla gi dara kon ko jaamu sa bopp nga jaamul ku weddi sa bopp nga weddil mais yàlla moom mooy ki woom le soxlaalul doomu aadama yi dara mi ngi noonu jàlla wa ala
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين
sunu borom mu ni alam yatikum naba'u alladina min qablikum ama ndax xanaa dikkalu leen xabaaru ña nga xam ni ñoo leen fi jiitu woon qawmi nuuxin wa aadin wa samud muy xeetu yonent yooyu walladina min baadihim la yaalamuhum illa allah ak ña nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw kenn xamu leen ku dul yàlla jaatuhum rusuluhum bilbayinat dékkaloon na leen seen yonent ya ca lay yu leer faraddu aydiyahum fi af fi afwahihim ñu delloo seen loxo yi ci seen gimmiñ ya wa qaalu inna kafarna bima ursiltum bi ñu ne ñun dey weddi nañu ci li nga xam ne dañ leen ko yónni wa inna la fi shakkin mimma tad'uunana ilayhi murib te ñun dey ñu ngi ci sikk sàkk ci li ngeen ñu woo jëme ca gën jaa tar ci sikk sàkk te mooy murib qaalat rusuluhum atillahi shakk yeneen tee ne leen waaw ndax yàlla sikk war naa nekk ci moom ci ak i mbiram faatiri samawati wal ard ki nga xam ne moo bind asamaan yeeg suuf yaduukum li yaxfira lakum min zunubikum moom mi leen woo ngiree jéggal leen lenn ci seeni bakkaar wa yuaxirakum ila ajalin musamma daal di leen di yeexe ba ci dig boo xam ne tudd nañ ko ba pare qaalu in antum illa basharun misluna ñu ne ey yéen du ngeen dara lu dul nit ñi mel ne ñun rek turiduuna an tasudduuna amma kaana yacbudu aabaa'una bëggu leen lu dul teg ñu ca la nga xam ne sunu bàyyi doon nañ ko jaamu faatuuna bi sultaanin mubin kaay leen ngeen dikkal ñu ca lay boo xam ne lay bu bir bu leer lay doon mbokk sunu borom mu ni ñii nga xam ne dañoo weddi xanaa dikkalu leen ña weddi woon ca jamonoy Nuux ak Aad ak Samuud ak ñi ñëw seen gannaaw te kenn xamul seen lim ku dul yàlla xanaa dégguñu seen xabaar bu dee ñun ñun dégg nañ ko ca suratu Huud sunu borom wax comme jaaral ñun ñoom ñëpp borom bi nag nee na seeni yonent dañ leen dikkaloon ci lay yu leer nañ te yonent heure bu ñëwee ñaari lay lay indi benn bi mooy mujiza boo xam ne moom rek moo koy man buy wone ni yàllaa ko yónni ñaareel bi it yoon bu leer boo xam ne kuy borom xel dina ko nangu dana ko dana dana ci topp mi ngi noonu waaye ña nga xam ne dañ leen wax ak ñoom la leen yeneen ciy waxoon te la gënal la leen gënoon a yéem benn mooy yàlla kenn la allaaxira am na dañoo yéemu ba jël seeni loxo taf seen gémmiñ te tey jii mbokk jotaay yu bëri boo fa demoon daa dina yowmal qiyaama ku dul yàlla mënu fa mënul faa jëriñ nit dara ndax duñ tëj seen i gémmi ñu ngi noonu ndax loolu ñoom xalaatuñ ko ñu ngi noonu su ko defee kon loolu moom moo tax yéeféer yi makka yeeg ña leen jiitoon ba ca xaw ma nu wax heure bu yeneen ci masaan wax yàlla kenn la ñu ne hu parce que yàlla kenn la égal usa zéro la hubal zéro la keneen zéro la keneen zéro la yàlla rek ay yàlla dafay jël sunu yàlla yépp ne duñu dara tas seen gémmiñ bu ngeen dee dañ leen di déclarer ñu tas seen gémmiñ yàlla mi ngi wax ak man ñu tas seen gémmiñ su ko defee lu ñu leen wax yéen bu leen ñu jaaxal yéen nekku leen lu dul ñun weddi nañu la nga xam ne moom lañ leen yónni te ñun ñi ngi am sikk sàkka bu tar ci li nga xam ne yéen nga koy wax te it loolu bokk na lu yàlla di faye yéeféer ndax mbir mu mën a doon nga am ci yaqiin weddi ko à cent pour cent da lay dalal wala nga gëm ko cent pour cent da lay dalal waaye ñoom da ngay gis yeneen ci yi leen yàlla daan yónni ci seen biir lañ daan juddoo seen biir lañ daan yaroo xam nañ ne ñii duñu fen waaye mënuñu dégg li ñuy wax ko defee toujours dañ doon sikk sàkk ca la nga xam ne mooy seen mbir ñu ngi noonu yamahuun du ñu xam luñ cay def borom boobu nag subhanahu wa taala ne yonent yi dañu leen doon wax ndax yàlla sikk war naa am ci moom benn ci ni mu wéetee ne moom rek yàlla yàlla mi nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ndax yey na ñu koy boole keneen waaye yàlla mi bind asamaan ak suuf su ne danaa dekkal ci dee woon ndax doomu aadama war naa yëgg di sikk sàkk ci loolu déedéet afillahi shak mbokk yàlla lu mu digg mën na ko innahu ala kulli cheyin qadir lépp mën na ko innama amruhu ida arada cheyan an yaqul lahu kun fa yakun kon afillahi shak ndax yàlla war nañoo sikk sàkk ci mbiram borom boobu nga xam ne mi ngi leen di woo ngir baal leen la ngeen jiitaloon ci bakkaar ay min zunubikum te loolu it mbokk ndegam yàlla di woo yéeféer yi ay yow jullit xamal ne yow waxi noppi borom yàlla ngi lay woo ngir nga tuub bakkaar yi nga jiitaloon mu ball lépp yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn guddi lu dul suñ demee ba ceer ba des ca suñ borom dana wax eh jaam yi ana kan mooy tuub ma baal koy bakkaaram ana ku may ñaan ma may ko ana koy xettali ko ma xettali ko ba baa fajar bi jot kon yàlla ñu ngi leen di woo guddi gu nekk ba ñuy jàng suratu Yuusuf Yuusuf gis nañ doom yi bi ñu ñëwee na bàyyi jéggalu ñu suñu bakkaar daf na sawfa astaghfiru lakum rabbi mufassiruuna yi ni dafa bëgg a bàyyi ba njël ci heure boobu yàlla naan ku may jéggula ma jéggal ko ndax xam ngeen ki nga ñëw fekk mu toog nga ne ko may ma bokk la ki yor mbir naan ku bëgg lii ñu ngi noonu yàlla nag ñu ngi yor njéggalam ku bëgg ma jéggal ko waaye su ko defee kon ñu war di baril di tuub di dellu ci sunu borom subhanahu wa taala waxumaa da leen di jéggal mais dana leen bàyyi ci jàmm ba ci dig bi ngeen war a dee ngeen dee ci jàmm du leen bugal ajalin musamma ñu ne leen hey yéefar yi ne yonent yi hey bu leen ñu jaaxal yéen nit ngeen comme ñun nekk na yàlla mi nga wax ak yéen te loolu ñoom mënuñu ko woon dégg parce que ñoom pour ñoom yàlla dafa war a wàcce malaaka mu wax ak nit ñi mais yàlla fam nekk mënul wax ak doomu aadama ci kaw suuf te mooy ñi weddi woon kumpo nga xam ne ñoo perte amaa ñun ñi yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñuy dund ba siècle yi gis nañ ne yàlla may nañu aw xott woo xam ne dañ koy këpp sa nopp di wax ak ka nekk ca biir Makka ka nekk biir Indonésie ak ka nekk feneen bal man ngaa yi gis téye ko di jàkkaarloog moom muy wax ngay wax loolu mbokk da ngay gis ne ko ko waxoon maam yi ñu weddi ko comme ni ñu weddee ni yàlla mi ngi wax ak doomu aadama yi ci kaw suuf yéen nit ngeen comme ñun benn lan moo leen yëkkati bëgg a dox suñ diggante li suñ maam yi doon jaamoo te lu ci bari mbokk yéeféer la koy tee dugg ci lislaam du ne dafa xool lislaam doyu ko lii problème am mooy bàyyi li maamam doon jaam loolu rek mooy problème am te itamit day dal xatta waa lislaam benn waaye ngi nii nga leeralal ko sunna ko sunna day lii la dégle moom dana mën na xam sunna baax na mais problème am mooy lii ma nekk fekk ci saa bàyyi saa maam nan laa koy bàyyee ndax boo ko bàyyee mbokk yépp dagg la da ngi noonu boo ko bàyyee mbokk yi dagg la boo ko bàyyee xarit yi biir bi dagg la su ko defee loolu mooy dox seen diggante ak jël la nga xam ne mooy dëgg bu bees boo ko taxaw seen kanam looloo tax loolu la ñu leen sant léegi nag su ngeen bëggee ñu gëm leen indil leen ñu lay boo xam ni lay bu leer la ca mooy kawtiif yi nga xam ne ñoo koy laaj te amul benn yeneen ci bu xeetam masalaaj kawtiif yàlla indi kawtiif ba lu dul alak na leen ndax ba kawtiif ba jotee it gëmuñu mi ngi noonu
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد
سنبرمني قالت لهم رسلهم نون لين تونتو سنيونين in nahnu illa basharun mislukum ñun day duñu dara lu dul nit ñu mel ne yéen walakin allaha yamunnu ala man yashaau min ibadi waaye yàlla day mooy kay baaxe ci ku ko neex ci ay jaamam di ko defal xéewal wa ma kaana lana an naatiyakum bi sultaanin illa bi idnillah nekkul ci ñun ñu leen di indil benn lay lu dul ci ndigalu yàlla wa ala allahi falyatawakkal almuminuun te ci yàlla rek it day na ca wékku la nga xame ne moom mooy julit ñi wa ma lana alla natawakkala ala allah ma ñun lan moo ñu ñeel ba du ñuy wékku ci yàlla wa qad hadana subulana te yàlla jubal nañu suñuy yoon wala nasbiranna ala ma azaytumuna ñun day daan muñ ci li nga xam ne yéen ngi ñu koy lore wa ala allahi falyatawakkal almutawakkilin mutawakkiluun te ci yàlla rek nay wékku ña nga xam ne dañuy wékku wa qaala alladina kafaru li rabbihim naam wa qaala alladina kafaru li rusulihim noonu la ñu weddi woon waxe woon seen yonent ya la nuxrijannakum min ardina ñun de daañ leen génni ca sunu suuf si aw la taudunna fi millatina wala boog da ngeen dellu ci sunu yoon wi ñuy jaamoo yàlla fa awha ilayhim rabbuhum noonu la waxyoo ci ñoom seen boroom la nuhlikanna zalimin ñun day daañ alak tooñkat yi wala nuskinannakum al arda min baadihim gannaaw balaa ñu leen dëkkal suuf seen gannaaw zalika li man xaafa maqaami lii de mooy ka nga xam ne ragal na sama taxawaay wa xaafa waid te ragalit la nga xam ne mooy samay tëkku mi ngi noonu bokk suñu borom mu ni yonent yàlla yi tontu nañu seen xeet ñun de duñu dara lu dul ay nit ñu mel ne yéen waaye nag yàlla mooy baaxe ku ko neex ci ay jaamam te it mbokku yéefar yi ñu ngi doon wax yonent yi nit la comme ñun waaye lenn ci julit ñi da ngay gis ñu yëkkati yonente bi ba paase lu ko nit mbokk doomu aadama yi ay nit rek lañu yonente bi alayhi salaam daana wax na ana saydu waladu aadam wala faxar man maa gën ci doomu aadama yi su ko defee loolu la ñu war a xam rek rek am ñu xiir ci moom ba yegg ci ne yàlla dafa tibb ci ak leeram bind ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di tibb ci yonente bi bind ci mbindaafan yi bu ko defee ñu naan ana min allah wal muminuna min nii ak wax ñu koy waxee loolu mbokk lenn sunu maam yi reprendre nañ ko mais ci ay téere lañ ko fekk mais hadis yooyu nekkul lu wér mi ngi noonu su ko defee nit la woon rek comme ñun bokkoon ci programme yàlla donte ne moo gën ci nit ñi loolu ñu bàyyi ci xel bu baax nit la comme ñun waaye mooy laayi biir ku ko neex ci ay jaamam di ko baaxe te mbokk yonente mbaaxu yàlla la du lu ñuy faggu nit munta góorgóorlu ba nekk yonente abadan looloo tax sunu yonente muhammad alayhi salaam moo nekkoon xaatama nabiyin yonente dootul am gannaawam abadan dootul judduwaatit di nekk ab yonente abadan lii pas-pas la bu doomu aadama yi war a gëm donte ne waxtu wii may wax ak yéen am na ñoo xam ne ñu ngi intoxiqué sénégalais yi di leen gëmloo ne beneen yonent am na bu dul yonent yàlla muhammad boo xam ne judduwaat na sénégal nekkaat ab yonent bal yeneen yonent yoo xam ne ñi ngi fii encore judduwaat nañ sénégal deeat sénégal gannaaw yonent yàlla muhammad seen rajo yi di émettre vingt quatre heures sur vingt quatre heures mbokk loolee da ngay gis ne wallahi ébola bi ñuy jàmbat ci yeneen réew yi sida yi ñuy jàmbat ak lu mu mën a doon moo gën téeméeri junni yoon pas-pas yooyu ñuy tasaare suñu biir doomu aadama yi ñu bàyyi ci xel bu baax kon yàllaay laay biir ku ko neex kam ci mujje woon mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam faatu na saxaaba yi suul ko ca madinatul munawwara fa lay dekkee jënte place ba ñuy daje ak borom bi rendez-vous bu mu joxoon nit ñi mooy xawul inna mawidakumul xawul déeg ba ma yàlla may ci àllaaxira mooy daje ba ñu dajeeg moom yàlla nañu yàlla boole ci ñettey naan ca loxoom ba mi ngi noonu su ko defee kon loolu la jullit war a gëm léegi nag ñu dolli ci ne yellul ci ñun ñu indi kaawteef yi ngeen bëgg sultaan lay yi ngeen bëgg ñun ñoo koy indi ñun day ndigalu yàlla rek moo mën a am ca ci yàlla la jullit di war a wékku lan moo ñu ñeel ba duñu wékku ci yàlla ca yàlla teg nañu ca la nga xam ne mooy suñu yoon subula naa bopp boo ko déggee bokk mooy sabilul xaq sabilul jihaad sabilu salaa sabilu sadaqaat sabilu mooy yoon ya nga xam ne yàlla da koo tëral nga xam ne ah mooy ay yoonam lanahdiyahum subulana loolu mooy yoonu yàlla yi waaye firiwul ni ay diine yu taqalikoo la abadan loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bu ko defee yonent yi ne daan muñ ca lor yi ngeen ñuy lor loolu it mu lay jàngal mbokk bu ñu la loree ci sa wàllu diine xamal ne mbokk loolu lu normal la ndax yonent yëla jiitu woon waxuma nit ñu baax na yow waaye yonent yëla jiitu woon sax dañu leen doon lor ngir lislaam kon ñu saboote la ngir lislaam yàlla bu bu ko yàlla nattoo waaye sax mën nañ laa dóor ngir lislaam tëj la ngir lislaam rey la ngir lislaam loolu lépp da ngay gis ne sunu borom nee ne yonent yi daloon na leen daan muñ ci lor yi ngeen ñuy lor te ci yàlla rek lay wékku ña nga xam ne dañuy wékku te nga la waaye yow dawal julit doy lool sa borom crise yi ngay dégg ci àdduna beeg jafe-jafe yépp doy lool yàlla rek sunu borom nee na wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaysu la yaxtasib wa man yatawakkal ala allah fa huwa xasbu wa man yatawakkal ala allah fa huwa xasbu tant que yaa ngi wékku ci yàlla yàlla dana la doy dana la wërsëgal foo ko foogewul kon wa ala allahi fal yatawakkal al mutawakkilun kii wékku ne wékku ci yàlla waaye bu ñu la waxee nga ne ah sëñ diw amul morom bu ñu la waxee nga ne ah bàyyi naa ko ci loxoy sëñ diw yàlla na la sëñ diw fay yàlla na la sëñ diw taxaw mbokk loolu langage la boo xam ne ni mu amee nii boo dellu woon xatta sunu bàyyi xamewuñ daawuñu waxe wax yooyu mais bi rajo télévision yi développé nit ñi am nañ yeneen façon waxi ni ñuy waxee yoo xam ne lépp mooy fàtte yàlla ku nekk ka nga yaakaar rek moom ngay nekk di waxe mi ngi noonu loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax sunu borom yàlla subhanahu wa taala ni yii firi nag na yonent yi gis ngeen léegi wax bi jeex na da ngeen di ñëw dellu ci sunu diini wala ñu génn leen sunu dëkk duñ leen mën a toléré mukk ngeen nekk ci dëkk bi te du ngeen màggal suñu xërëm yi ah mbokk loolu wallahi mi ngi am ba tey de mi ngi am ba tey de waa ashabul kahf da ngeen li ñu waxoon moytu leen de waa dëkk bi buñ leen jàppee yarjumukum aw ya'uddukum fi millatihim buñ leen jàppee daal ngeen dóor xeer ba ngeen dee wala ñu delloo leen seen yoon bi waaye it mbokk da ngay gis ñu bari dañoo jàpp ne alors ñoom nañ gisee jaamu yàlla dëkk ba ñu dëkk keneen ko gisewul loolu dañ leen fa war a génne xale yi seetaan internet bi xam di xew ci dëkk bi xam nañ li may wax da ngay gis ñoo xam ne kër gi ñu nekk ku fa bëgg a jaamu yàlla ñu génn la wallahi benn jigéen a ngi ñëw fi ci tafsir bi la tas ab sëyam kër gam sëyi woon borom kër gi dee na muuraay yi ngeen def kenn du ko def suma kër looloo ko fa tase ñu ngi noonu bari na ay nit ñoo xam ne nii la leen tax ñu dàq leen seen service mooy diina jiñ bëgg a dund am déet moo tax ñu dàq leen seen service ñii looloo tax ñu génn leen seen réew ñii moo tax ñu indi leen jafe-jafe yu nekk te mooy yéeféer yi ak jullit ñi xamul ca yoru comportement yéeféer mooy loolu lii ma gëm ngay gëm boo ko gëmul nga jël say bagaas gëm sa yoon gis ngeen loolu am nañ ci ay misaal yu bari am nañu benn xale boo xamee ne nii léegi mag la mi ngi yor daara ci yëmbal mas na ñëw ci man ne ma kat man damay nekk di julli di jël samay loxo di tegale waaye waa ji may yor nee na loolu su ma ko def këram naa génn kër gi te boobu xale la ma ne ko muñal rek loolu du dara léegi buur ko def mu ko ci kanamam gis bu la yàlla mayee nga am man sa pexe bopp nga xam nga dem nga alhamdulilah léegi yàlla may na ko pexe boppam mi ngi njabootam mi ngi ay daaram yàlla yàlla barkeel ko waaye mbokk da ngay gis ne lu ci bari ci jullit ñi duñu gëstu duñu laaj mooy boo gisee ay nit di def dara la nga war a jëkk a xool ñii li ñuy def fu ñu ko teg xale bu jigéen bi muur fan la ko teg ndax dafa am mbooloo ñu wax ibaadu kat ñooy muur seeni jànq foofu la yem déedéet mbokk jullit loolu yàlla subhanahu wa taala mooy kaka santaane ci téeréem bu tedd bi kon nan la sa doom bu jigéen jóge ne damay def li yàlla bëgg nga ne ko doo ko defee ci kër gi loolu moom problème la bokk jullit xabd bi it yow xab doo xab doo yaa ngi suñu xad war nga laaj mais lii fan la jógee mbokk da ngay fekk ne téere yi ñoo ko wax Muwatta Maalik mooy téere bi gën a mag ci mazhab Maalik mooy Muwatta Maalik seen référence bi gën a rëy imam Maalik moo ko bind te sunu gox yépp dañ naan ñi ngi ci mazhab Maalik mais boo demee xabd rek lay wax foofu kon kay problème bi mooy yow xabd wala nga bañ a xabd lu moom sa problème la mais nag bul fekk ku koy def nga ne ko da ngay génn kër gi loolu mbokk ay mbir la yoo xam ne ñi koy def waxuñu mukk ay yéeféer la ñu de waaye dañ ne ñu ngi yore mandarga yéeféer yi nga xam ne dañ leen wax yonent yàlla yi imma ngeen sax ci ni ñuy jaamoo yàlla di ko bokkaale wala ñu génne leen dëkk bi gis ngeen sunu borom yàlla subhanahu wa taala ne ci noonu la yàlla wax yoo jëme ci ñoom na leen ne seen xel dal danaa alak tooñkat yi te it daal di leen di dëkkal suuf ci seen gannaaw lii ñeel na ko ragal sama taxawaay maqaam yi am na ñaari firin benn bu njëkk bi mooy lañ jàngoon démb ak man huwa qaimun ala kulli nafsin bi ma kasabat yàlla mi nga xam ne moo taxaw bépp bakkan di xam la muy liggéey di ko gis di ko dégg ci ragal surveillance yàlla boobu dana bàyyi xel loolu beneen bi it mooy la borom bi wax ni fa amma man xaafa maqaama rabbihi itamit bokk na ci keroog ba la yàlla subhanahu wa taala di boole ki malaaka ñu génne la si biir bàmmeel escorte la ba taxawal la sa kanamu borom mu atte la boo fa jógee imma janna wala imma sawara ku ragal taxawaay ba muy nar a taxaw ci kanamu borom boobu ku mel noonu day ay kaawteef nekk na ci moom mu war cee fàttaliku wa man ak li man xaafa waid ak ki nga xam ne dafa ragal bëggoonum sawara ki ragal mbugalum sawara lu ko waay mën a def ci lu ko yóbbu sawara du tax mu ànd ci ak yow boo koy duma duma yi am na fu mu yem boo koy tëj tëj yi am na fu mu yem gis ngeen jabari firawna ya firawna ba mu ne leen ne da ngeen weddi Moussa ñëw jaamu sama xërëm yi wala ma rey leen daaj leen ci kaw garab yi dañ ne ko faqdi ma anta qaad innama taqdi hadihi alxayaat addunia dogalal li ngay dogal ndax fag dogal adduna la jëm loolu ñu mbugal mbugal mbugal bis day mësu ñëw ñu dee te bu dee jeex na am naa suñu borom yàlla nag ay mbiram du jeex ba faw loolu ku ne war su ngeen bàyyi ci xel ñu ngi noonu
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد
سن بروم جل وعلا مني واستفتحوا نصكوا أقبيكوا وخاب كل جبار عنيد noonu la perte bépp koo xam ne dafa mbëru daa di wane ak dëgër bopp anit mooy ku rëy rëylu ci kanamu boromam dëgër bopp ci ay aayam mim waraihi dana nekk ca seen gannaaw ay gannaaw ba ñu dee jahannamu lii di sawara wa yusqa min ma'in sadid dees na ko nandal ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt lay doon yatajarra'uhu man kay nekk di ko góox wala yakaadu yusiquhu ca du ko xaw a mën a wann wa yatihi almawtu min kulli makaan moo koy dikkal déega jóge ci bépp place wa ma huwa bi mayitin ca du mën a dee wa min waraihi azabun galiz dana nekk ca gannaawam la nga xam ne mooy mbugal mu dëgër mu tar ñu ngi noonu masalu lazina kafaru bi rabbihim misaal ñi nga xam ne dañoo weddi seen borom amaluhum karamadin seen jëf yi day mi ngi mel ne ab dóom muy cendre ab dóom boo xam ni istadat bihi riixu dafa tar ci kawam la nga xam ne mooy ngelaw upp ci upp gu tar fi yowmil aasif ci bis boo xam ne bisu ngelaw bu metti la laa yaqdiruuna mimma kasabu ala cheyin su ko defee duñ mën a am kàttan te lañ fàgg woon ci dara dalika huwa dalalul baid loolu day mooy réer goo xam ne réer gu sori la mbokk wastaftahu mooy sàkku ak ubbeeku am nañu ne yonent yi ñoo ko wax te mooy comme la Nuux waxoon iftax bayni wa bayna qawmi yàlla ubbeel sama diggante sama xeet te mooy atte ñu am na ñoo xam ni dañ ne déet yéeféeri ñoo ko wax ñu ngi mel ni la nadr ibnu xaaris waxoon allahuma in kaana hada huwa alxaq min indika fa amtir alayna xijaratan min alsama ne woon na yàlla bu dee muhammad mi li mu wax dëgg la tawal ci ñun ay roche ay xeer yu jóge ko asamaan kon sàkku nañu ubbeeku pour yàlla atte sunu borom nee na bañ ko sàkkoo rek la perte ñépp ña nga xam ne dañoo mbëru woon daa di wonoon dëgër bopp seen boroom te mooy yéefér ya nga xam ne jaamu wuñ ko woon borom bi nee na ñooñu day bu ñu dee la leen di xaar moom mooy sawaras jahannam buñ fa demee daañ leen fa nandal te waa sawara dañuy mer bi ñaan yàlla mu nandal leen is yastaxisuuna yuxaasu bi maa in kal muhl yashil wujuh suñu borom nee na bu ñu ñaanee ñu nandal leen ñu sotti leen ndox moo xam ne dafay mel ne beteex bu ñu ruyal buñ ko jubee seen deru kanam ga yépp mu daal di koy soodee michuy ko borom boobu nee na ndoxum dëtt lañ leen di jox te mu fassiru ni nee nañ liy balle ci ñoom ci ay rangooñ ak ay deret ak ay lu kenn xamul loolu la malaaka yi di tànq mu yegg ci degré tàngoor bu kenn xamul moom lañ leen di solaat ñu koy naanaat mi ngi noonu moom lañ leen di solaat ñu koy naanaat suñu borom nee na ñu ngi koy góox duñ ko mën a won laa yaakaar yu siquhu loolu tax day xotti put ba xotti la nga xam ne mooy mbàq ga sottee ko ci suuf fa taqatta at am ahum comme na ko yàlla waxee ci suuratu hajj mi ngi noonu noonu lay xottee gémmiñ gi xotti put bi xotti la nga xam ne ci tuuru ca suuf malaaka yi tànqaat solat leen ko encore borom boobu subhanahu wa taala ni moo tax dee da koy dikkal fu nekk te yàlla na yàlla musal ñu ci mbugalum sawar sunu borom nee ni kenn du mbugal ni ñu mbugale ñi ngi ci sawara bi di leen lakk ñi ngi leen di jox ndox mu bon moomu ñu koy naan ñi ngi leen di chargé zaquum boo xam ni dafa suñu borom nee na que ruus shayatin fruit la yoo xam ne dañoo mel ne boppu seytaan yi yeneen ci bi sala sam nee na benn toq zaquum bu waddoon ci géeju àdduna benn doomu aadama dootu noyyeeti loolu la ñuy naan bokkul ak la nga xam ne mooy yax moom di benn ammoniac boo xam ne nii moo leen di sëfëke bokkul ak bolde yey dal seen kaw bokkul ak jaan yi ñu nekkal ak yeneen ak yeneen moo tax suñu borom ne yatihil mawtu min kulli makan ay yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin an bu leen malaaka yi roofee fii roof leen fii roof leen fii fu nekk rek bu doon dañuy dee dee dikkal na leen un million de fois doonte ne yàlla leen di may résistance boo xam ne du ñu dee doonte ne mbugal ma daan ko yëg moom à cent pour cent moo tax sunu borom ne wama huwa bi mayitin borom boobu nag subhanahu wa taala ni ñi nekk ci kaw suuf nga gis leen ñuy liggéey la ñuy liggéey baax nag baaxut waaye yéeféer lañu ñi ngi nekk médecins sans frontières ñi ngi nekk di def ci œuvre de bienfaisance bienfaisance yi di dem ci àll yi di dimbali masaake ñi di def nangam même bu doon la ñuy liggéey lu baax la ak lu ñu mën a dajale ci alal ak ci immeuble ak ay nangam ak i nangam sunu borom nee na ñu ngi mel ni rek ci amoon fii ab jarul dóomam lu waaye dégg di war xam naa xam nga luy dóom mu ngi noonu loolu la ñu def ci ànd yi ab jalub dóom mu daal di koy jal fi léegi nag benn jour ngelaw bu tar ñëw te mbokk xam nga ngelaw dana fekk garab nu buddi ko yóbbu am déet kon ab doom mën na koo tëwaay nee na doom bi riddi ci ba nga xamee ne da koy bàyyi mu rattax ban dang dara dootu ca des nee na yéeféer bi gayaale kéeféer lum mënoon a def lu baax perte na ko na doon te way jur yaag doomu aadama yaag lum mënoon a def ci lu baax maadaama ba muy dee kéeféer a gayaale perte na ko comme borom jëlu doom bi nam perte ak doomam sunu borom yàlla subhanahu wa taala ni lii de mooy réer ga nga xam ne mooy réer boo xam ne réer bu sori la yàlla na yàlla wërsëgal ñu ngëm bu sell wërsëgal ñu jëf yu sell musal ñu ci sawara defal ñu àjjana sunu wàccewaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad loolu sunu yeneen si sallallahu alayhi wa sallam nee na aljanna téeméeri daraja la ñi nga xam ni ñoo nekk ci suuf daañ gis ñi ci kaw ni ngeen di séenee la nga xam ne mooy biddew yi waaye def ne jullit bi bu duggee aljanna ba pare sunu borom yàlla danaan ko jàngal li nga mënoon ci alquran sa place mooy aaya ba ngay mujjatari su ko defee muy jàng di yéeg sunu maam yi xamuñu woon luy ascenseur ñun ñoo dajal ascenseur nga xam ne da ngay taxaw rek muy dem su ko defee ngay jàng ascenseuru àllaaxira nu mel allah subhanahu wa taala alam ngay jàng di yéeg daraja yi di jàng di yéeg daraja yi di jàng di yéeg daraja yi ba baa la nga mokkaloon ci alquran jeex loole mën nañ ci rafet njorte ne képp ko yàlla wërsëgal nga géeyaale alquran yépp sa dënn firdaw su nekk sa wàccuwaay waaye tamit loolu daal lañ ci dégge mooy donc lu ñu mën dajale téereb yàlla bi suñu dënn ñu def ko luñ ci mën a dajale ñu dajale ko ci loolu amul lenn lu ñu mën a dugal suñu biir dënn lu gën la nga xamee ne mooy alquranul karim li nga noonu allah subhanahu wa taala alam naam bismillah naam man nga ndax boo wooree man nga soccoo pat loolee bi charte mooy fagaru nga ba yëg na dara du wann dara doo ko ca wann amma bu dee da nga sëgg nga utiliser sa pat raxas sa gémmiñ ba mu set mu wóor na la ne amul lenn loo ca wann loola nekkul luñ cay tere mi ngi mel ne rek ci woor yor ab soccoom di soccu loolu da ngay gis ne soccu l'islam gërëm la ci journée koor bi yépp mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw xatta caf-caf gi innama al amalu bi niyat su dee yow sa jubluwaay mooy socc rek ba set loolee caf-caf gi du la wàññi dara amma nag boo jëlee sa socc boo xam ne daa koy xëpp di fat bi caf-caf gi loolu du ci dara mi ngi mel ne ndox bi ngay naan da da nga yëg ne ndox bi mi ngi doon day am lu muy saf loolu mbir mi daal mooy nga fagaru ba dara bañ caa jàll mais li yem sa gémmiñ kese nga koy raxas sa gémmiñ loole yàqul ci koor dara lay yàq koor daal mooy la jàll ca put ga mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ah bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah dama njàkkati jàng jàng
njëriñu jàkk njëriñu jàkk ci kër
tënk tënk maanaam tënk boo doon tënk njëriñu jàkk mooy la ala kulli xaal mbokk njëriñu jàkk moom mooy jàkk ala kulli sunu borom yàlla moo ne ñu yëkkati ko ñu tabax jàkka waaw ci ci tënk la wax waaw de ñu yàlla moo wax nañ tabax jàkka jullit ñi yeneen ci bàyyi islam bi mu demee Madina jàkk la jëkk a tabax lu waral loolu mooy jàkk mooy dajewaayu jullit ñi jullit ñi man faa daje di xamante ñaareel bi tamit ci ñëw ci jàkka ji julli yàlla fulal ko julleem ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar mais lay nga xam ne mooy jubluwaay ba gën a mag ci jàkka mooy jullit ñi mën a daje nekk benn moo tax yonent bi alayhi salaam daawul yem nañ dugg ci jàkka ji kese waaye dinaan nañ defar sappe yi tegante mbagg ak tànk ngir jullit ñi xam ne ñoom ñooy dooni ndey neen quartier bu nekk ña fa nekk di daje cinq fois par jour di tegante tànk tegante mbagg bokk xalaat yàlla ni mu bëgg ñu jaamu ko moom rek noonu la bëgg ñu booloo ko jaamu ko loolu ñu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw loolu nekk na lu ñu sib ci julli kenn du nekk ci julli di fooy say sikkim ak di fokk say baaraam loolee day wone ak toroxlu nekkul ci yow te ruuxu julli mooy ñu toroxlu ci kanamu borom bi subhanahu wa taala naam naam am ñi nga xam ne ñoo nekk Nigéria di wax dañ ne mais même yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwaat ci jamono ji daf seen ginnaaw sëriñ lay topp ndax loolu waxu kéefër wala lay génn ci kéefër
waa ji mu dégg mu ne yeneen ci bàyyi salaam bu ñëwaatoon sax ci gannaaw seen sëriñ lay topp mu ne ndax loolu ak kéeféer la ala kulli xaal waxi kéeféer la duñu wax ne ki ko wax yéeféer la tànk leeraluñ ci moom alxujja waaye ku jàppoon ne la yeneen ci bokkoon ci Muusa yeneen ci bi daf ni Omar dafa yor benn këyit ci Tawraat aaya mu yàlla yónni xoolal passage bi ci Tawraat yonent bi alayhi salaam mer na ko Omar Moussa mi tawrat wàccoon ci moom bu doon dafa dékkiwaatoon amul lu muy def ci kaw suuf lu dul topp sama gannaaw léegi nag yow nga ne yonent bi alayhi salaam bu dékkiwaatoon sa gannaaw sëriñ ngay topp loolu moom mbokk wax na def naa réew mi ñu ko waxee. jàpp am nañ ko problème ci
am na ñu ko wax Nigéria réew mi ñu ko waxee.
ah jàpp nañ ñu ko wax.
waaw alhamdulilah nee nañ la ko wax réew mi ñu ko waxee jàpp nañ leen ba condamné leen à mort wa ñu weddi na ko.
ah waaw alhamdulilah wala may na ay doxam nga def.
alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ala kulli xaal loolu la sunu borom yàlla bëggoon mooy bu daf yi waxee njombe yëpp nit ñi ñoom delloo leen ca la nga xam ne moo ci yoon mi ngi naan wallahu aalam waaw naam waaw bismillah waaw aleykum salaam aljanna cent degré la juróom-ñetti bunt la am juróom-ñetti bunt la am mais darajee téeméer la donc benn bunt mën na am ñaar fukki daraja sax daraja mooy place yi ñu nekkee amma bunt yi ñuy duggee loolee moo nekk juróom-ñetti bunt ñu ngi mel ni rek tey ñu ne woon Dakar am na juróom-ñetti quartier am na parcelle am na Grand Dakar am na Colobane am na nangam waaye boo demee këri parcelles yi yéemuñu am déet këri Dakar yi yéemuñu kon bunt yi ñuy duggee juróom-ñett la waaye bu ñu duggee ci bunt yi daraj yi ñuy toll yéemuñu mi ngi naan wallahu aalam ala kulli xaal mbokk kon yaakaar naa manes na doy loolu loolu bu yàlla dajale woon ñu fi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk